di gërëm suñu rek suñu xarit al oustaz Mokhtar Kébé suñu yaakaar tasul ci moom xamoon nañ ne nii lay demee aussi parce que xam nañ ko xam nañ tem problème bi ma am kay mooy moom waxuloo ak ñëpp waxul ak ñëpp li may laaj mooy est-ce que ñi muy waxal danañ dégg li muy wax est-ce que buñ ko déggee danañ ko jëfee problème boobu rek laa dese sinon moom message bi moom jàll na macha allah euh, dafa wax wax ju garaaw ما دلو خالق وش القرآن تموي سورة مايدا آية جوان بن فكات نت ما خال منة ما بدفع هني بي أبسوسيت ملء نموه سادي أي غاف غاف يموه بيم أمي تشوس تبسوس تبكان يا الله دفن لو تيوان كلي في ديني واه أك إنتلكتيلي وخلصا واه لو تيوان يني لين بايلين لين دير lu tere woon kilifa diine yi ak intellectuel yi wax ñiy jalgati ne leen bàyyi leen li ngeen di def ma xool lu tax loolu ma gis ne aaya bi ko jiitu dafay wax ne effectivement dañoo dëngoon ba pare ne jub nañ mooy benn pour benn groupe bu dënga dëng bu ba pare di jalgati ba pare wax ne moom mu jub léegi nag mu jur fitna yàlla ne lu tee sëriñ si wax ak intellectuel yi affaire bi man na affaire bi daf ma jaaxal

mais lutax ñu leen di que ko xamne yow lañ a fonk ci société bi yow lañ tegoon ca kaw faire kaw ñu dem ba lay nga constat bi rek bay lool duñ ci motax man xawna dama parce que dama li ma lo moy dama poser question mané est-ce que ça yi xalé yi je xalé yi diñu ndax imam la mën naa bokk ci kilifa diine yi imaam la saaga yi xale yi saaga est-ce que xale yi xamadee tax ñuy saaga wala dañu leen matul matatul ay kilifa problème boobu laa am la est-ce que dañoo xamadi wala ñun dañoo matatul kilifa loolu man foog ñu too foog ñu dimbale ma ci daal parce que man sama problème la waaw ndax dama jàpp ne kilifa. mooy kii régler say problème di tontu say question est-ce que ñi ngi question xali est-ce que ñi répondre ñi ngi solutionner seeni problème kon defe naa ne nañ ko xajjo ci digg bi téeméer téeméer ñom ñu rew lañ ñun ñu manqué ay kilifa lañ salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Imam Ahmad Dam amna na solo dafa mel ne na waaye ay laaj la yo xam bi nga ko waxee kenn ku mën nañoo bàyyi foofu mi ngi am lu mu ciy yëg dañuy jox euh, euh, docteur Ismaïla Diop moom lañ waxoon ne moom lañ ciy toftal gannaaw bi imaam daam laajee laaj yooyu mu laaj nga xam ne wax ju juunu moom kenn bëggu koo dégg ci pénc waaye bu ñu demee ba fa mu daanul jëm mu di fa jëm am na laaj yu bari yoo xamante ne warees na ko caa mën a laaj. ñoo ngi dalal itam délégation bi nga xam ne ñoom lañu àndal te ñuy ay kilifa ku ci mel ne doyen Mody Niang ak euh, monsieur le ministre Serigne Bassirou Sarr sëñ Lamine Sarr professeur Lamine Ndiaye tudd naa ko léegi euh, docteur Khadim Bamba Diagne euh, danaa ñëwaat ci kilifa yi nga xamante ne ñoom lañu àndal ñëpp ak ñi nga xam ne war nañ cee jël kàddu bismillahi rahmaani rahim الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته defe naa ni li docteur Mokhtar waxte Mbàkke wax ko ci tàmbali bi mooy dafa mel ni àdduna bi ñoo am problème mu jàmm dafa mel ni àdduna bi yëpp ñoo tiit ci fitna gu ñuy yoot léegi nag laaj bi mooy est-ce que lu tax ñun Sénégal fi mu ne nii ñu bari lu ñuy waxtaane jàmm lu tax jataay yi mel nii yëpp ak xutba jumaa yëpp ci jàmm lay wax ndax dañuy waxtaane jàmm ndaxte Occident ñoom ñi ngi wax ni troisième guerre mondial commencé na am na ñu koy wax est que looloo tax ñun ñuy waxtaane jàmm est-ce que li ñuy waxtaane jàmm mooy ndaxte nenañu Iran legi mu meuna a defar bombe nucléaire am liko ko dese baleetul États-Unis mi ngi koy tekkou te loolu tamit meuna tal aduna est ce que loolu moo ñuy waxtane jamm est ce li tax ñuy waxtane jamm moy Chine tekkou gi mi tekkou taiwan ñune dako def ni Russie def Ukraine ndax loolu motax ñuy waxtane jamm loolu taxul ñuy waxtane jamm li tax ñuy waxtane jamm moy dañoo gis ni ñun suñu tolu jamm bi la am lu koy yott loolu moo motivé suñu waxtaane jàmm mooy dañoo gis ni suñu biir kër suñu jàmm ji ñu amoon suñu tool bi am na daay ju koy yott soo demee ba yëg mënaas yëg ni am na lu lay yoot taxawaay bu njëkk bi mooy nga xam li lay yoot fan lay jóge ndax nga gàttandu ko foog nga identifier fan la mënaas bi jóge kon dañuy def étude dakaar rek mooy ñun suñu daay suñu tool mooy la daay gi di bëgg laal fan la menace bi jugee ñun fan moo tëkk suñu jàmm fan mooy menacé jàmm ji nga xamante ne ci la ñu nekkoon mu mel ni fi ne nii dañoo am benn yëg-yëg prise de conscience ci ne ndekete kat suñu jàmm ju yàgg ji ba meloon ni euh, xamatuñu valeur bi maanaam apprécier tuñ ko à valeur léegi dañu dem ba gis ni ndekete buñ ko sàmmul ñàkk ko li koy menacé fan la jóge suñu xoolee dinañ gis ni ngelaw liy ëpp bëgg a taal tool bi ci politique bi la jóge langue politique la jóge te suñuy xool at yi weesu yépp saa yi ñu tiitee ci suñu toolu jàmm bi tàkk ci langue politique lay jóge léegi soo xamee li lay li lay yoot li lay menacer fi mu jóge léegi li war mooy taxawaay taxawaay mooy jël responsabilité ndaxte jàmmi penc sàmm ko ñëpp la war ku nekk ci niveau boo toll responsabilité dañuy wuute mais ñëpp am responsabilité ci ja ci sàmm ko ndax intérêt ñëpp la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Médine fekk fa ñoo xamante ni bokkul ak ñoom pas-pas bokkul ak ñoom projet de société mais quand penc mi moom ñoo ko bokk te ñu sàmm jàmm ji ñun ñëpp ñoo ci am intérêt waaye kenn ku nekk la war donte bokkuñu ay programme moo tax dafa woo ñim seqaloon penc mi yëpp. ñu waxtaane pénc mi ba wax li nga xamante ni daa mën a yàq jàmmi pénc mi ñu moytu ko ñu dëppoo ci li mën a yàq jàmmi pénc da cee bokk mooy waa penc mi suñu waxtaanee ba tënk ay mbir ne tool bi bu fi kenn indi lu mën a taay daal lu mën a taay lu mën a taal daa euh, euh, daay suñ demee ba dëppoo ca ñu toog ba yàgg gis ku indi pétrole teg ñu toog ba yàgg mu indi almet té ñu toog ba yàgg mu génnee brin té su fekkente ni ñam ko séqa responsable nañ duñu toog naan waxagul ni day taal tool bi suñu responsable ndax bu ñu toogee ba mu taal ko ñoom complice lañ ci lool ñoom am nañ ci responsabilité fofu la élément manu bi di duggé parce que manu suñu xol xool fum ko tuddé rek dakoy jakarlo jàkkaarloo ak tooñ ndaxte li tax yonnati alayhi musallam sonu ci tabax kenu bobu kenu manu parce que manu su amul ken du nek ci sécurité te buñ nekul ci sécurité développement mënul am parce que ken du mëna doxal dara motax julit du neutre julit du neutre jullit dañ ko ne na jël position lan mooy guide position mooy day xool fu dëgg féete bu xasee gis fa dëgg féete rek dafay féete léeg-léeg nag féete ak dëgg day am conséquence moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo koy jël assumer conséquence yu mu àndal yëpp la taxaw fi laahi lawmata laa'im kon jàmm li koy sàmm tamit du ay wax jàmmi penc taxawaay la laaj mais du ay wax du ay wax moo koy téye دو اي وخ باسكو وقا خ... آه... وقاتلهم حتى لا تكون فتنه بس داكاي لاج سوكا لاجي فوك ام تخواي بوبو نون كون جوستيس مانو تي جوخ كو نيك اقام لولو سو امول بنتي مونول دوخ لولو سو امول كين دو مانا دوخال ليغا خامتيني موم غا بوغا دوخال كون pour wax ni rek ci ci gattal nda am ñu wara intervenir jàmmi penc dañ koy sàmm jël responsabilité bàyyi neutralité mais xool fi dëgg féete nga féete fa loolu mooy la sàmm jàmm penc loolu nag li mu laaj lislaam dani il faut ngeen def ko li mu laaj il faut ngeen def ko wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin jàmm mënta ñàkk te fu ñu tuddee aw ay dañuy tudd tooñaange ñu jàkkaarloo ñoom ñaar ki yor almet yor mboob yor pétrole téla la loxom bam baña tal bañ taal moo gën nan xana du ko taal kay <laughs> dafa melni ne rek lañu déggé say wax ñu jox euh, sëñ mbub euh mom lañ ci toftalon momit mu ñew wara joxé contribution am defena li ñuy waxagon ci tomb bi jëlon ci jamm wala manduté ak jamm ngir am rek wala manduté ngir am ak jamm ngir am développement bu sax ñu ngi ci yoon woowu te loolu mooy li am solo suñ sëñ kër Mboup kenn la ci mbooloo mi waaye ci borom xam-xam yi nga xam ne ab diir a nii bu ñuy def waxtaan wi moom ñun ñoo ciy ànd am na at moo xam ne moo def exposé bu jiitu bi tey mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo joxe seen ay taxalixaat di acteurs itam ci lépp loo xam ne day indi jàmm ñu ngi am mbooloo moo xam ne dajale nañ lu ma téeméeri nit ñoo xam ne kenn ku nekk joxe na engagement am ngir li indi jàmm ci pénc mi li indi jàmm ci pénc mi nag toog waxtaane ko ci la bokk sol saw dàll ci la bokk waaye nag balaa nit a solu daal dangay xam fa nga jëm olof yi ne nañ neexum ngont xam fa ngay fanaanee ko gën ku xam fa nga jëm it xam na nga fay demee am na ci solo lool dafa mel ne suñ jotaayu tey bi mën nañu koo jural ñu jox kon euh, sëñ Babacar boroom sàmm jikko yi sëñ Babacar lay cité <laughs> bu ko defee mu joxe contribution bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Warna jar ñu woote ci ablal wa jar nako ah thématique bi xamna man lima ci wax du sori ñongi ndokel aussi professeur Ismaïla contribution amna solo dañu wax ni justice et équité pour une paix durable Manam ñaari mbir lañ tudd muy justice ak équité ngir lan ngir jamm ju sax mu melni kon ñaari mbir yoy ñu tudd yépp ben finalité lañ ci bëgg moy jamm. ñu am ko yoon ak manduté. wala xëñ na keneen waxe ko neneen ñu seetlu ni bu fekkente ni ci yoon la réew mii dama yaakaar ni yiñ war di waxtaane ba léegi it am na ci yu bari yoo xam ni it ah war nañ koo tudd bu baaxit mu leer ndax dafa mel ni situation bi fii mu toll naka jekk mësta soppi man dama jàpp nii wala boog bokk naa ci ñi jàpp ni senegal justice moom amu fi justice amoufi fi te lolit du ci régime bi ñu nek dong la dañoo la res la res la république muy res li ni dañ koy ci ñetti keno wala ñetti wos benn bi nak moy ngank li justice di atté ci waaye yeneen ñaari institution yi nga xam ñoo ci des muy le pouvoir législatif ak le pouvoir exécutif depuis ca Senghor ba léegi ñaar yi muy justice ak parlementaire dañoo nekk aux ordres dañoo jébbalu ci exécutif bi Senghor bu ñu fàtte mukk ni motion de censure lañ def daaneel Mamadou Dia utiliser justice yóbbu ko kaso c'est-à-dire fi lu fi bes man la gisul dal wax deug yalla Senghor bu ñu fàtte mukk ni yaay une manifestation bu fi amone yo xam ya plus de 40 morts 40 personnes yu ñu ray mom moko fi massa def ci président ci benn beuk fi lu fi bes amu fi Abdou Diouf ci régime am it kazalika li fatu ci ay bakkan ci régime am ken xamul lu mu toll muy utiliser justice bi ak parlement bi di def liko neex Ablaye Wade bim mu dikkee it kazalika li fatu ci ak ngouram ken xamul lu mu toll muy utiliser justice bi ak parlement bi di def liko neex buñu ñu fàttalikoo en 2004 bi ñuy accuser Idrissa Seck Macky Sall mii moo demoon assemblée nationale ñu joggé fa jël justice bi japp yóbbu ci kasso bi lol donc la Macky Sall di def fi mu nekk nii moom alors dama japp ni kon bu fekente ni bëgg nañu jàmm ju sax jooju il faudrait que ñu fexé ba justice bi baña a nekkati aux ordres xam la justice institution la bo xamni sañ-sañ bi mu am ci askan wi la ko ni ko exécutif bi jëlé ci askan wi muy rendre la justice au nom du peuple waye rendre ko nak wax deug yalla ci ni mu gëna séréné serené na mu gëna djubé jube na mu gëna a yelle te xejj ak seen bañ ci am waye lu soppiku ci met googu man ko ko xam ya ko xam waye xawmako la fi xewoon mo fi xew ba légui Benen bi ci Mits tamit manam ci jëmmi maandute maandute gi ñi wax ragal nani ni Sénégal maandute lu fi jafé am lay doon ndax maandute gi dox suñu digënté ñun citoyen yi waaye nak buñu faté ni ñun citoyen yoy dañu nekk ci ben régime buñu wax régime wala bok système bo xamni ne si système démocratique la système démocratique bi dañ nan mbolo mi ëpp fanu jooy jëm mbooloo moom dafa mel ni ñoom ñoo yor kàddu gi ñooy doxal te bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñooy minorité bi mbooloo moomu bu ñu leen seetoon tey dañ naan ñi fi ëpp ci réew mi njabootu yonent bi lañu alayhi salaatu wasalaam li ëpp ci réew mi waaye tey suñu demee ci suñu ndeyi charte réew constitution bi article 4 bi dafa wax ni ci alinéa 3 bi D'avoir les partis politiques et coalitions de partis politiques de même que les candidats, indépendants sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. ñu ni waye mbootaay yi nga xamni ñom ñoo wara yor réew mi di doxal di laaj kaddu askan wi téré nañ leen jukki damay jël li ci mujj rek téré nañ leen ñu tektalo ci walu waso wala xet wala ci parti bi de parti jigen ñi la wala parti goor ñi la wala ci pass pass ci diiné li ndax ak té la

une population constituée majoritairement, pratiquement 95% de musulmans. ni yeneen bi que ñu gëm mooy le modèle parfait Alors que gëm avons nangu que yeneen texte yoo xam ne si ñoo ko tiim ci parti politique ñun ñu tere nañ leen ngeen identifié ci loolu ñun ñëpp ñu nokk ba noppi ni ak mandute la loolu nu mu ak mandute kon bokki yi li fi matona wax yépp wax nañ ko waye wax dëgg japp naa amna du point de vue des principes loo xam ne du ak maandute te tudduñu ko waxuñu ko te dees koo war a wax gis nga suñ constitution bii dañ ko war a dajj sànni ci àll ba loolu nag sama man maa ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ kër Babacar Mbuub jëf moom itam ci contribution bu am solo bi nga xam ne moom la def defe naa booba léegi ñi ngi wax imaam daama ngi doon posé question léegi sax bi docteur Mokhtar noppee ndax ñi muy waxal dégg nañ ko sëñ Babacar am na fu mu xuus foo xam ne moom it ruqub boppam la boo xam ne am na solo lool ci jàmm ji te bu daanee daaneelee ñu xam lim bëgg a wax lan la dañuy jox sëñ yoro ba sëñ yoro itam mu ñëw indi euh, participation ni nga xamante ne noonu lañ ko waajale woon ñoo ngi dalal bu baax itam sëñ Ousmane Mbacke sëñ Ousmane Mbaye Cheikh Khady mi ngi ci jotaay bi di rakki sëñ Abdou buñ daan tàmbali jotaay bi ci ñi koy ubbi lay bokk ñi koy tëj ak ñun lay bokk moom itam moo ko euh, sëñ Mahmadan ak njabootu bàyyi Cheikh Khady gépp ànd ak sëñ Abdou ci liggéey bu am solo bii muy def ni sëñ Abdou mel ci biir borom xam-xam yi sëñ Ousmane mii noonu la mel ci ñoom bu ñëwee moo xam Dakar la wala fu mu mën di doon ak ubbeeku gu mat sëkk goo xam ne ànd ak oyof ba mën a partagé ak ñoom loolu nag day mel ne ku ñu waajal moo koy man sëñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax yow itam ci teewaay bi ak jëmmal gi nga xam ne yaa ngi koy jëmmal jotaay bi jombut buñ demee ba ci cottital yi danañ la jox kàddu kon ñu jox yoro yoroba mu joxe euh, moom itam euh, contribution